dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Amady Dieng bi nga xam ne mooy directeur général agence bi nga xam ne moom lañu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum tabax ay bâtiment nguur gi ak ay édifice mu xëy séq waxtaan wu yaatu ak waa réew mi quotidien ma ngay biiral li nga xam ne mooy ay njàmbatam ak jafe-jafe yi nga xam ne ACBEP daat na koy am daat nay wax ne la nga xam ne moo waral jafe-jafe ya bokk na ci bëri na ay marché yoo xam ne dañu ko war a joxu agence bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum tabax bâtiment ak édifice public publique waaye bëri na ay ministre yoo xam ne du ñu ko jox ASBEP te loolee bokk na ci li nga xam ne moo tax kër ga di am ay jafe-jafe naam woppi coronavirus ji tax na kër ga am ay jafe-jafe te li nga xam ne moo taxoon ñu sos ko ci atum 2011 mboolem loo xam ne ay liggéey la yoo xam ne joxoon nañu ko waa ASBEP jamono ji mën nañoo wax ni liggéey yooyu amul lenn lum ci jëfe ndax ñi nga xam ne ñoo ko war a jox ay marché joxuñu ko ay marché yéen kaay gi de la témoin xëy ñu yóbbu ñu diiwaanu Dalifor Dalifor googee nga xam ne Idrissa Diallo mi bokkoon ci taxawu Ndakaaru bu Khalifa Sall moo nekkoon maire bi nga xam ne génn na adduna waa APR dañu faa yebal Mor Ngom ak ki nga xam ne mooy Mame Boye Diao ngir ñu ger ñi nga xam ne ñooy conseillers municipaux yi nekk ca mairie bu dali Dalifort ngir ñu votel candidat bu APR Mor Ngom xaalis la fa yóbbu ki nga xam ne mooy Mame Boye Diao nekk directeur général des domaines moom nag dafa dig ñi nga xam ne ñooy conseillers municipaux yi maanaam ay terrain dañoo wax ne bu ñu votelee candidat bu APR ba mu gagné mairie bi ñoom dinañu leen jox ay terrain Mor Ngom moom xaalis leen dig yéen a kaay gi de la témoin nee bu Dalifort Dalifort waa APR ñoom yebal nañ fa seeni ndaw ngir ñu ger corrompre ñi nga xam ne ñooy conseillers municipaux yi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu couvre-feu bi Ndakaaru ak Thiès yokk nañ ko ba ñaar fukki fan ci weeru février yéenekaay gi de La Tribune nee na en tout cas li amba desal woppi coronavirus ji ma ngi gën di bëri ci réewum Sénégal ñi nga xam ne ñoo ciy faatu ñoo ngi gën di bëri ñi nga xam ne ñoo ngi xiif ngir woppi coronavirus ji ñoo ngi gën di bëri ñi nga xam ne ñooy gën di sonn ngir woppi coronavirus ji ñoo ngi gën di bëri ci réew mi ñi gën a jaaxle nag te woppi coronavirus ji teg leen ko tamit ñoo ngi gën a bëri ci réew mi yéen kaay gi de la Tribune nee na jamono ji fi Sénégal toll Macky Sall war naa wax ndax nag mbir mi li nga xam ne moom lay xeeñ neexul yéen kaay gi de Les Échos nee na armée sénégalaise bi ñoo ngi def ay opération fi nga xam ne mooy ca àllub Casamance bi jamono ji ñoom daat nañuy wax ne képp koo xam ne fekk nañu la fa nga yor ay ngàndaay danañu ko jëflante ak yow mboolem yi nga xam ne ay toolu yàmbaa la ñu bay ko ci àllub Casamance bi bi daf koo bëgg a nettoyer yéen kaay gi li xëy na ko gis mooy mort subite ñi nga xam ne dañuy jekk-jekk rek faatu jamono ji dafa takkarnaase ndax ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru démb am na ko fa ñàkk bakkanam am na tailleur tamit boo xam ne dafa jekk-jekk faatu ca Touba am na ko fa jekk-jekk faatu ca Sodida fan yi ñu génn am na tamit ku fi jekkoon jekk rek faatu fi yéen kaay gii di Vox nee na nag bu weesoo coronavirus bi nga xam ne ma ngi def lu dara jërul ci réew mi ñi nga xam ne ñooy faatu te dara du leen dal jamono ji tamit ma ngi bëgg bëri ndax lu toll ci juróom-ñaar ci ay fan am na lu toll ci juróom benn ci ay nit ñoo xam ne dañoo jekk-jekk rek faatoo yéen kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu Thiès mbuurkat ñi nga xam ne ñoom lañ doon daaneel seeni kër président Macky Sall recevoir na leen loole nag mooy bàyyi ba jaan dem nga topp sa watis wa di dóora yéen kaay gi di réew mi quotidien nee ñu ñu nga xam ne ñoo dëkk cees mbuurkat am na si ñenn ñoo xam ne dañu doon manifester keroog bi nga xam ne moom la ñuy daaneel seeni kër am na juróom benn si ñoom ñoo xam ne teg nañu leen loxo mandat nañ leen dépp niki démb maanaam yóbbu nañu leen kaso yéen kaay gi di critique nee na woppi coronavirus ji ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la làmbool néew na ñoo xam ne bàyyi na leen fi ñi nga xam ne ñooy prostitué yi maanaam ñi nga xam ne ñooy jaay seen bopp jamono ji gisatuñu benn client ngir woppi coronavirus ji maanaam seen liggéey bi doxul benn yoon la ko gën a yokk nag bokk na ci couvre-feu bi am na si ñenn ñoo xam ne sax dañuy jaay seen bopp waaye nag seeni client amutuñu xaalis léeg-léeg sax bu client yi ñëwee dañuy siim seen mari ngaañ yi ba doyal bu weer wi jotee ñu doog a fay maanaam bor lay doon yéenekaay gi dee saat ñu xëy jànge fa ne candidature bu maître Augustin Senghor ñi nga xam ne ñooy waa FIFA daal nañu koy nangoo yéenekaay gi di sunu